waaye Cheikh Bouy Diop mu bàjjan lalla mu Cheikh Abdourahmane Kounta Cheikh Bouy Diop le messager de Ndiassane eh, Cheikh Bouy Diop ah. mu Cheikh Abdou Khadir Jeylani ah. Cheikh Bouy ah. mu maam Bounama Cheikh Bouy Diop mu maam Cheikh Sidi Moukhtar Cheikh Bouy Diop mu maam Bekkaay Cheikh Bouy Diop mu maam Bou Cheikh Bouy Diop mu maam Cheikh Bou Mouhamed kon nag Cheikh Bouy Diop mooy dugg

yàgg na lool yàlla masula woote élection kenn masu ko coup d'état amul lu koy aar mbaa lu koy yiir mbaa lu koy xettali ci lu mu mën a doon laa ilaaha illallaah ووالد خص بالبقاء والخدم ku sopp maami kunta yi ne nii say baaraam chef yi amadul bekkaay nee na yàlla bi say xakuukin ibnadin xadimin fajasin bi tamtamat damdamat gaasiya aymi barik lana ardana bilbayan ajalin wahab lana nicmata tuula من أنيامي واضر لساكنها من الصباح ومن كل الأقارب والخيات والسحم لا إله إلا الله ruxiya ka nuuri yaxruju min bayni sanayaahu ana ku fi gën a bëgg Seydina Muhammad fi tasul mbaa nga xolle yéen ñi teew festival salaam ku fi gën bëgg Seydina Muhammad del ni sa ibaaraw ay yoneen gor ñi yaa leen gën di gor ay yoneen géer ñi yaa leen gën di giir su ma yaboonaan génn giir rek am te mooy Seydina Muhammad giiru giir ñaanga Madina ana soppi Muhammad Rasulullaay maa xalaxalaaw yàlla bindul xabla woo ca la ko jiitu wala baxda woo ak la koy mujj ginnaaw misla woo fi lanaam ku mel ni Seydina Muhammad yeneen mi may way ku ko bëgg dem ajjana Seydina Muhammad ku ko yaakaar dem ajjana seyduna muhammad ku ko roy dem ajjana seyduna muhammad ku ko tuddee doom sa yàpp yaram aram na sawara waasal bi xanaa xamu leen ni bu ñuy makka ku jóg taxaw dem aljanna yuusu yaa woote festival sala ki nga ko jagleel mooy Seyduna Muhammad moom la yàlla yónni mu nekk kaafatan linaas bu njëkk ba bu yàlla yónni yónneen ci wu xeetam lay yam waaye Seyduna Muhammad moom la yàlla yónni ci bépp couleur ana soppay Muhammadu Rasulullaay su geer masaan am su xare masaan am lu xare ba tàng-tàng dafay wax ni bu leen rey xale màggal yéen ñi bu leen rey màgget yéen jullit ñi bu leen rey jigéen yéen jullit ñi kuy woote jàmm Seydina Muhammad moom la gën a bëgg jàmm ana ñu fi sopp Seydina Muhammad maa ngi ñaan kenn ku nekk nga dendal nga jox ko loxo ni ko baal ma àq te dëgg ci yow festival salaam Youssou Ndour ñi ngi lay nuyu tabaarakallaahu yaag mbooleem ñi nga àndal ci liggéey bi ndax su ma commencé dootuma taxawaat dama bëgg a bégal soppe yëpp di rafetlu lii fa tabarakallahu di ci nuyu suma xarit docteur Yuma Ati Fall mi nga xamante ni tey mooy directrice euh, de la culture de la langue française et des diversités fa tabarakallahu ca francophonie di nuyu diaspora bi yëpp bëgg leen a bégal ci yonent Yàlla Muhammad ana ñu sopp yonent bi marxam la badar ya fadan la soppey Seydina Muhammad ne wuñu fi ku sopp yonent fi tasul baa nga sar xolle ana soppey rasulullah ana soppey rasulullah waaw ana soppey rasulullah mal xam na badar ya badar waaw leen rasulullaay yaa ma gënal bépp bànneex ci àddina Seyduna Muhammad mi may way billaay yaa ma gënal sama bopp Seyduna Muhammad mi may way billaay rasulullaay yaa ma gënal sama sëriñ laay laay bu defal nii dama bëgg a kër ga bégal ñi fi teew bégal waa diaspora bi su ngeen bëggee ma def ko sar leen sama baaya daan waye nii Cheikh Papa Jooba daan waye nii su ngeen bëggee ma toppandoo ko def leen nii moo daan wax mbooloo mi déglu leen déglu leen bu baax baax delu dal ba xol yi feex ngeen xam ni noo seddoo ku baax dal ba xol yi feex ngeen xam ni noo seddoo ku baax mi yàlla gërëm gisal keroog nabiiri ñaan te def lu ci diiwaan malaaka yaa fa toog fanaan di teeru mustawal karim mawdo yàlla yabal jibril mu fëx ni ko demal nga jël muraax boo demee ba jël quraan ngeen jaari ajanay nay waxal malaaka ya nanu waaj nan waaj ba dellu yees ngir teeru mustafal karim déglu leen wul du buuna maam doon nay cheikh al xalifa ne maam bu naa ma mooy sa maam sëriñ Mahamad buuna kuntane ku ko soppu defal di bayu buuna imaam nee بسم الله خالقنا من يقول كن ويكون tey la gàmm kuy wut a xam topp ci man incha al jalil rabbuna tey ma way rasulu ma gën ahmadul amin ma ni cey doomu abdalaay ma woon aw niram amul bésu tey masta am ci bis yi fi woon musta ne leen champion yàlla moo ko tànn mu gën كل مسلم فتاة كم رسول مرملك مودي منتقى تقيون سبنا مستلال جلوبون تعرف انت تي بري جم تي رسول الله موان موي لامين مور يوفي تندي يركن يوتمن جاسي دال دريد ولا غان مصطفى ما دوي كروك مان امنا معجزات يوم بير وير وخوتي كوم جلاوان muy garab di rab mu di dooj wax na noog rasul du di fen jant bi demoon na ba soo na njiit yi saabiya woon te sil rakkam mu julli takkusaan ci barki yoneen Xaybar it amoon na gëléem jàmb na dem ci yoneen fajtaka tawat na ca moom la ya def ci lu bon leen ma nettali leen leen bu baax baax gisal keroog ab yiir ñaan weer wa di rajab dayu koor laylatu usnayni la woon jibril ak mikaayil ak israafil la ñëw ci ma ubbi ab dënam di ko seet ñi ku nuy wisit di nga gën indahum keroog ñu nga yor su ab super la bu fiihi maa u ndox ma ca biir doy na waar ne leen ajaban mooma ndox ñu def ko ca moom ñi ku wisit di nga Fatimatu bintu Rasul nan ko lan la bay sama man Rasul ni demay wuyu ñe la warabana la ilaha

لمن قد انتهى بنوره منتشر وكم رأت من عجب أمنة أم نبي ليلة مغرق الربيع بنور أحمد السيد لمن بخير منتقى سببت إذ رمقا yoneen ana soppe yoneen ana soppe yoneen insaanul kaamil wa muhammad bëgg dem àjjana yaakaar dem àjjana sopp ko dem àjjana waay waay diina jarul xatal kay leen nu booloo ku ne ka nga dendal jox baal ma nanu bokku bëgg Seyduna Muhammad ku fi masa baax rek moom la way ana soppe yoneen sunu sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar Cheikhul Machaayikh nee na ko alaamat ko ashul abay wayinu dikruha ba ca njëkk mooy xamaamat law kaana taqi min al xarb kenn du borom barrière woor ba ku fi nekk ci dama bëgg nanu jàppante te dëgg ana soppe alaaji Maam bu Mamadu njaasaan lay yeewoo Cheikh Bou rekk laa gëm waaye képp kuy nitu yàlla bëgg naa la te yàlla rekk tax loolu lalu borom njaasaan sant ñun nee na kun abidan وناسكا مستمسكا بقبل الله الباني فلا تميزا ولا تفرقا عباد رب الخلق والاكوان من قال لا اله الا الله برم جاسان نينا فكن له اونا بالاستغزان moo tax ni nuy woyee Njaasaan la nuy woyee Tuuba di ko woyee Tiwaawan di ko woyee Yoof di ko woyee Ceneba te loolu la nu gëm te bu kuy walli yooy nangul naa la sang mbaax gannaaw ba jaayante naak donay mam bu naama boo demee tuuba di fa fekk daj bu ñu naan lakal farlu yaa muxtaar yaa saydal wara alayka salaam la saxati turaan balak maram ay sax sa jëm maam jaara bu sa misal naay ma dawoo walay sa yudriku bil akwabi tayaaru sëriñ bamba nee na gaabun wal xasaanu wal busayri xat barawoo wa kulluhum charu wa asraar tey damay gàttal boo demee Tiwaawan fa fekk maam Abdou mu mën a yóbbaale ñëpp géew ana soppee maam Abdou Aziz Moulay Dabbas لحل طيبة لا توم سواها وعساك أن تعذى برؤية تاها waaye def leen ni ñu magal Seydina Mohamed وإذا وصلت لها التحل من تربها هو اسم ذو العينين وهو جلال الغريب قلوبنا تقوى دار الحبيب قلوبنا تقوى دار الهنا وكذا الهنا وكذا المنى دار الحبيب حلوبنا تقوى دار الحبيب هي طيبة طابت لطيب أصولها ومدينة رب سما سما دار الحبيب قلوبنا تقواها doon wane ni ñun ñëpp rek ñoo bokk lépp boo demee kër Baay lay dégg leen ñu naan laa ilaaha illallaah nga jóge fi dem Kaolack kër Baye Niass dégg ñu naan allah allahu ilaaha laa ilaaha jóge fi dem ceene ba dégg ñu naan kër gi gunge leen ma sañ naa dellu sunu kër ana soppey borom njaasaan fi tasu leen mbaa ngeen sarxole bu ma dee femtu way mel ni seex boo taxaw di wax defal lii dindi lii man seex bu sama imaam lii dootu ne yàlla la bay bu naa ndeysaan maa ngi fem way wu rëy wu jëm ci góor gi may rëy ku ko weddi def nga ay ne leen ko sembu wàcc nga bisu samedi laa demoon ca conférence ba baaliga ñibbi si xel mi dem ci moom manaa ko sembu wàcc nga ana soppay borom jaasaan fi tasu leen baa ngeen sar xolle bay bu a jaatam Cheikh Albekaay la taawloo bayu Cheikh Sidi Lamine borom étage ba ca Ndiassane bayu Serigne Abdou Bu bayu Alaaji Cheikh Sidi mi ma tuddee Cheikh bu Mohamed bayu Cheikh Sidi Ali bayu maam Abdoul Latif bayu Cheikh Sidi Mokhtar ku sopp Cheikh bu Mohamed fi tasul mbaa nga sar xole bayu maam Sidi Bale bayu Abdourahmane Sene Ba Cheikh bu Mohamed Kunta yaa bari ngor bay bu mooy jaatam ñoo ngi yalwaan di jooy jooyu njaboot gaa ngi ni maam sagalaat nu laay laay laay wóolu naa sa barke la ilaha illa